tey waa Sénégal dañoo ñëw fii ànd ak suñu ay frère ADK muy ànd dooleel Khalifa yi nga xamante ni tey gis ngeen mbooloo mu takk mu ñu jël ñu wër Thiès gépp di wax li nga xamante ne mooy ñaaw teef yi nga xamante ni président Macky Sall bi ñu koy def ak nguuram jëmee ko ci suñu frère ñu koy nuyu de passage le maire Khalifa di ko wax ni combat bi mi ngi doog a door léegi nga fekk si incha allah ñooy campagne ndaw ndax ndaw yi cees ànd nañu te taxaw nañu pour génn la ci kaso bi nga xamante ne dara dugal la fa dugal ambition bi nga am pour nekk président de la ñuy laaj Sénégal ba xam am ambition nekk njiitum réew ba xam deli la i ñu nekk ñu ne leen ñu ne loolu da danañ ci teg baaram ñu waxtaan ci jàpp nañ ni tey kaso bi ki ko mérité woon mooy ki dem signé ay contrat ak Total jaay suñu pétrole bi France bi ci xamante ne moom la nañ ki jël sa rak mu jël ab picc ñëw géejawaay sonal leen di def lu dul nu ñoon moom lañ jàppoon ni moo mérité tey kaso tey waa ADK ak waa Manko taxaw Sénégal taxaw nañu temb ne Macky Sall li ngay def doy na duñu fi nangooti nga jàpp ci benn leader bu bokk ci opposition bi di rafetlu kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko ak ñi ñëw ci mouvement bi yëpp. mais dañuy alerter ñi nga xamante ni ñi ngi daw di ñëw. fii maa ko koo senegal Sénégal du pour poste député bu gisul sa bopp ci li nga nekk nga dem sa yoon ñun askan wi la ñuy taxawal doo toog ba dernier moment ñu togg lu ñuy togg ba taxaw ci askan wi ngay ñëw pour négocier poste député ñi ngi alerté ñi nga xamante ne ñi ngi daw di ñëw ku ci poste député taxaw ñëw na nga toog te xam ne ñu duñ ko def li nga xamante ne moom la ñuy def mooy poste yi dañ koo fàtte ndax Sénégal la ñuy taxawal ñi fi nekkoon démb di xeexal Sénégal ci opposition bi xam nañ leen nag te ñooñu ñoo mérité tey poste yi donc bañuñu kenn ñëw mais kuy ñëw na intérêt Sénégal ndax ñaax ngeen askan wi ñu jëli seen carte waaw ñaax nañu askan wi te dañ koy demander autorité yi ñoom ñu dem yóbbu ko ci centre yi parce que li ñu gis tey tey Thiès espace jeune kese moo fi nekk cinq ñu wàcc am na ñoo xamante ne dañuy liggéey cinq heures la ñuy am jot nañ ko yóbbu ci centre yi xamuñu lu ñu nar nag parce que bindu bi dafa jafe woon retrait bi jafe ñi ngi ñaan nguur gi mu yombal ko ndax xam nañ ni askan wi jépp nañ leen te suñu jëlee suñu gàtt dañ leen sanctionné incha allah Macky Sall au soir du 30 yuuxu dana jub fu mu ko foogewu mais ñu ngi koy xamal ñaar dana bàyyi le maire Khalifa Sall ak ñi mu àndal defuñu dara tay dañuy laaj ne xaalis boobu am na ñeneen ñoo xamante ne war nañ leen cee woo ku ci mel ni député Abdou mbaw xam nañu xaalis boobu fan la jox nañ ko ci bu baax a baax ndax ba mu toogee xiif lekkul naanul ñu nekkoon ci opposition le maire Khalifa moo ko daan jox lu muy dundee Khalifa Diakhaté kon tey suñu jàppee le maire daal ni nag dafa jël loo xamante ne askan bi moo ko moom te mu delloo ko ci askan bi ñam ko joxoon war nañ leen woo war nañoo woo aussi ñi nga xamante ne ñoo ci nekk ñëpp mais ñi ngi ñaan askan wi ñun ñëpp ñu àndandoo te gis na mu ñëw wuy si Manko taxawu Sénégal di rafetlu li nga xamante suñu ndaw ñi ñu ngi koy def muy waa Manko waa ADK surtout nag di gërëm seen coordonnateur national bi taxaw nii nga xamante ni li yëpp moom la tey da koo waroon fekk Kédougou mu ne dama koy bàyyi ñëw ànd ak ñi nga xamante ne mooy ndaw jees yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp mais le maire Talla Sylla tey ñu ngi ko doon xaar ci mu ñëw ci combat bi mu ñëw jàppale moroomu meeram mais xaaruñu ko ci mu jaay ngorom ci 500 millions ànd ak Macky Sall population Thiès ñu ngi koy woo ne ko tey ci liñ koy xaar mooy mu ñëw ci frère bee nga xamante ne maire la naataangoom ni moom ñu àndoon ay combat parce que ku xam relation Khalifa Sall xam ne nag teraangaam bañu lu ko woon kenn xam nañ digganteem ak Talla la kon Talla la ñu ngi lay woo nga ñëw soutenir sa frère Khalifa Sall moo gën ngay jëm di jaay kees wasalaam